nga ne lan man ni may def ci këri jàmbur yi moom nga def sama jëkkër yow satu caw yow yow yow yow ci te trompe yow dangaa juum di yow te ne xaalis moo la sonal dangaa fàtte ne xaalis moo tax nga jaay sa ngor jaay sa dignité yow amatoo fi yow amoo ba benn dignité yow amoo dignité amoo personnalité moodu moodu yi ku jóge vacances ñëw dal luy appartement nga dëkkali ko di fanaan di yendu boo xëyee di def say omelette ñu jàppal ak laa katta ba sa data di siit bu ñuy ñibbi duñ la sax tàggu fi lëfal ndayam nga dem kër sekumbaay gumba teg la dil paap gumba teg la dil katta la fayu la sa xaalis ma nekk ci problème bi di mëpp di mëpp di mëpp ba kenn yëgu ko ah kon yow yaa war a irinte sama jëkkër ngeen da ngeen joxe rendez-vous Cheikh duma ko wax dara ndax góor la Cheikh duma ko wax dara ndax góor la tey yow xam nga ne Cheikh yabu ma lii yàgg nga kaa def ndax yow koo àndal tëdd nga jëkkëram waaye man yéen nga ne bii di nga ko fi bàyyi ah, ok kon li nga doon toog sama néeg ma lay nettal naan si dafa mën a katt buy bu may katt damay aja si coiffeuse bi fu na la may katt ah da nga bëgg mu katt la mbaa yëg nga ne du la katt yëg nga wàll feebar yow da ngaa fàtte ne foo toog yaa ngi rey nit ñi ak xet nga ne lan man goowee rek laa am man gàcc ngaa laa ma man sama néeg macha allah dara manqué wu fa. yow koo àndal duulal nga ko koo àndal yàq nga ko dangaa fàtte premier jour bi nga ñëwee sama kër may lal samay dara ranger la ko ba mu fees nga ne ma Mamy Ngom ñaari dara la am man sama coiffeuse macha allah dama ko rangale ba mu fees te xottu amu fa cuuraay bu dul cuuraayu jinne mu ngi sama coiffeuse man sama néeg ku ñoo di ma seet booy dem cuuraay laa lay may wala parfum kon yow wéroo ndax loolu teg nga si sa bët dootoo ko defati nag dootoo ko defati gis nga man ngóone coow lii tànk yéegul ba tribunal wala monde entier di si wax man Ngoné Ndoye man duma arrêté satu coow foo bëgg ñu dem fii yow sa lëfal nday heure boo yeewoo yow yaa dàq sa boote yow defoo nga boole moo bari defoo yi nga boole moo bari man maa gën yow sama tànk sax la gën yow am jëkkër am far sa génération yaa ko fi génne ku ka def si yow la ko gise man bu ma ko defee si yow laa ko gise ndax yow da nga farantoo farantoo farant ba sa jëkkër bàyyi la moo tax ñu fase la boobu ba léegi mënoo am jëkkër góor ñu ku yéeg wàcc ku yéeg wàcc yow bés bu la takkee sa jëkkër du fekk ci yow lu fal ndayam ndax sabtata data yow ko mag teen chaque jour nga def rapport doo tëbal chaque jour góoroo góor nga dem infect pa yow yow yow yaayay yow yaayay de yow yaayay foo fekk nova ramassé ka ndax sab data si boppam moo xasaw man sama man xaw nga maa rey kon li fi nekkoon di togg di jeegu yëpp yaay yaa ah <laughs> mu ngi woon si seex mbayal nga ne seex do la katt seex yabu ma yow xam nga loolu démb dama ko mu weddi ko ba mu set xam nga lu gën a neex muy weddi ma xam ne day duul ma toog ko si biir yëg nga ne yow ñëpp dinañ la katt ba mu def seex seex nga namm waaye du la katt sa data boobu dinga ko écarté keneen dugal si kooyam waaye du doon seex maa la gën a vulgaire surtout yow dama ne la nga xam nga la laa bëgg nga débloqué ma ndax man téléphone jàmbur laay wax ak yow dama bëgg nga débloqué ma ndax man débloqué naa la ñu jàkkaarloo monde entier du ñu dégg yow doo datam ndayam doo lëfal ndayam yow sëtu jaw yow boo xëyee balaa ngaa teg ndékki ndékki dinañ la kattaa kattaa katta ba sa lëf di siit yow sa jëkkër dala fase toj sa lëfal nday fase la ba fase waale sa doom ngay jaay dignité jàpp sa doom jël dugal yaa sa ba weer wee de ñu jàppale tëdd la tëddee tëddee tëdd auberge bu ne nga dem fa auberge bu ne nga dem fa pour fayal sa doom pour yow doom jooju mooy réussir aka uuteex doom yi nga xam ne seen yaay dañuy fóot ñax ba sonn na pour fayal leen yow sa doom sa jëkkër dala fase fase waale sa doom ndax sa caga sa génération amul jëkkër amu far yaa dof njëkk a def ndëngaan bàyyiwoo kenn bàyyiwoo sa xarit bàyyiwoo kenn ñëpp ñëpp la yi man a palmarès man ngoone moo gën sa bos ndax yow ëpp giwin nga yow lépp nga boole giwin yi ku si bëgga daanu wala kar ñaata giwin ñoo la iri seen kër tëddee ah? boo bëggee ma ñaata giwin ñoo tëddee la katta la affaire yi tourné wër si dëkk bi yow da nga jël la fal ndayam yow góor ñi di la katt jigéen ñi di la katt daanu jaral la ne cinq mille ku ko am am benn daanu bu defee sept mille daanu bi neex mu am ñaar sept mille ñaari daanu si la am yow kuy caga yow yow kuy caga yow yaa gën a yées sa génération yaa gën a yées koo àndal yàq nga ko koo àndal duulal nga ko dama bëgg nga ñëw ñu yàqaaloo fii ku ne écarté yow dootoo ko defati man nga ne maa dootul defati yow yaa ko dootul defati sëllëfal ngay duwul dem marché joor ne ngoone dama wàccee ay meuble mu mere ma yow ban meuble nga wàccee sëtu coow ban meuble nga wàccee yow sam néeg boo doxatee du génn ndax xat sa lëfal nday man bi ma doonee ngoone ba léegi dama mës a amam néeg yow bi nga dooneem sëtu coow ba léegi sa génération ñëpp am nañ jëkkër sa lëfal nday am nga 34 ans xaw ma 35 ans ren ngay soo amam néeg ren yow jege naa yéen sam néeg man maa la ko jàppal danga ko fàtte borom njegenaay ba léegi desel nga ka kaasufeer ya fa ne maa jënd si sukunaana jàppal la avant nga kaa fay sukunaana dafa wax ba sunna yow sëlla fanda yow la nga am sam néeg lan moo fa am du dul am mat laa ma teg sama ñaari pose pied nga dem jënd ñaari pose pied yow sam néeg lan moo fa am danga nga toj fen sëlla fanday sa yëri si ay saak nga ka def bu di boo sol tey balaa nga kaa solaat di nga ka seet wër kaa wër a wër a ba tas ndax bagage yu bari xas naan cagab yof jëfoo yow yof jaroo fi dara yow yaa jarul dara yoof nag nakati yow koo àndal ñaari fan bu ma àndax yow ñaar fu ma àndax yow ñu ne ma kii am jëkkër am far looy yow fu ma àndax yow fu ma génn yow bi ma bi ma la bàyyi dañu ak sabar suñu digg ëkk di tëgg pour ma bàyyi la maa xas si benn côté tous les côté benn mënoo ma see wax dara dërëm nga ma si mënu la wax yow ay xas ay yaay yi man duma la xas si yaay parce que man sama yaay daf maa yar man dañ maa yar yar ma fi ma war a yare loolu yow la rek parce que temps bi nga am ni man awma ko pour audio lu gën a tas yow weeroo ma sa jëkkër ngay weer tas ka audio yooyu ma cinquante centimètres tas ko waaye yow yow da bàyyi kenn yow ndinaat bàyyiwoo génn góor ak ndinaat yow génn góor ak bàyyiwoo ka bàyyiwoo kenn yaa ngi si ñëpp bàyyiwoo kenn sa data bi defoo si euvil defoo si la de yow bu masetee xam nga bu ma xam nga yow xam nga si dara bu baax yow man may woddoo ab sër ñëw toog nga man sër bi dafa weex loo ko fóote man da man na man jël naa duma góor damay fóot ba mu neex yow xam nga lu ma sol lu tilim ñëw sa kër parce que yow mérite woo ko kuy nekk ak yow day mel comme yow comme que yow garba nga man duma garba li nga xam man xaw ma ko yow bàyyiwu génn gën góor ndinaat kenn kenn kenn kenn yow bu ma tax a wax waaye yow sab dara gën a yàqu si dëkk bi yow parce que ñëpp a xàmmee li ngay def si dëkk bi man am jëkkër am fa dama ko daal dégg si ay jamono rek te si yow laa ko mas a dégg dama ko daal dégg nii nii nii rek yow sa àddina amoo ngor amoo dignité loo mën a am sa àddina sexe moo la ko gënal lesbienne yi ku si gëj daanu woo nga dem góor yow da ngay tëdd bay tëdd silmaxa yi yow waroon nga ma sa def yenn yi parce que dama la suturaal suturaal suturaal ba man ne ab dof dem nga kër sa kumbaay tëdd faax gumba mu teg la dil la fay vingt mille joxu xaalis bi gumba laa la wax gumba rek ak na gumba saltee mënul toppatoo boppam nga tëdd ak moom kon yow xanaa de yow yaa gën a salte si àddina yow kan nga mën a jaay dignité ak personnalité mën a duul boole si dafa yi ne si yow moo bëri àddina yàggul ba ma ñee la parce que boo xëyee balaa nga ndékki sax di nga tëddante tëddante tëddante ba tas dëngaan jaroo fa lëfal ndeyam góor faalalu fa jigéen faalalu fa jaroo fa dara at bu jotax ki ngay àndal boo àndee kii tey suba nga ànd kële yow kan nga mën a wax dara yow muy toj sa lëfal xam ne lesbiennes yi géwén yu ne si àddina bi yow yaay seen caga tëdd nga ñëpp yow da ngay tëddee jigéen ñi di tëddee góor ñi sëllëf loolu nga xam ne doo si def ovine doo si def citayal yow bu néeg boo dugg ba génn sax katante te di bëgg a rey waa néeg man moo tax wala ma si woon ay wax sama goowe laa teg dugg boo dugg boo génnee ma teg ñaari goowe yow salte nga li nga boole moo bëri sëllëfal ndey bi moom doo toog a defar ndax say nee nga doo yeewu waaye nit ñi ñoo ba pare yow di la yee dafa xaram lii di ko def boo wéroon yow waroon ngaa seet keneen ku nga mënoon mais mënoon nga fee bàyyi Cheikh defati. nga man ni may def jëkkëri jàmbur yi moom nga def sama jëkkër yow satu caw yow yow yow yow tu te yow dangaa juum di yow te ne xaalis moo la sonal dangaa fàtte ne xaalis moo tax nga jaay sa ngor jaay sa te yow amatoo fi yow amoo benn dignité yow amoo dignité amoo personnalité moodu moodu yi ku jógee vacances ñëw dal loué appartement nga dëkkali ko di fanaan di du boo xëyee di def say omelette ñu jàppala katta laa katta katta ba sa data di siit bu ñu ñibbi duñ la sax tàggu fi lëfal ndayam nga dem kër sekumbaay gumba teg la dil paap gumba teg la dil katt la fayu la sa xaalis ma nekk ci problème bi di mëpp di mëpp di mëpp ba kenn yëgu ko ah kon yow yaa war a identifier sama jëkkër ngeen da ngeen joxe rendez-vous Cheikh duma ko wax dara ndax góor la Cheikh duma ko wax dara ndax góor la te yow xam nga ne Cheikh ma lii yàgg nga kaa def ndax yow koo àndal tëdd nga jëkkëram waaye man yënga ne bii di ko fi bàyyi ah ok kon li nga doon toog sama néeg ma lay nettal naan sie dafa mën a katt buy bu may katt damay aja si coiffeuse bi fu na la may katt ah da nga bëgg mu katt la mbaa yi nga ne du la katt yëg nga wàll feebar yow danga ngaa ne foo toog yaa ngir rey nit ñi ak xet nga ne lan man goowee rek laa am man gàcc ngaa ma man sama néeg macha allah dara manqué wu fa yow koo àndal duulal nga ko koo àndal yàq nga ko da ngaa fàtte premier jour bi nga ñëwee sama kër. may lal samay dara rangé la ko ba mu fees nga ne ma Mamy Ngom ñaari dara la am man sama coiffeuse macha allah dama ko rangale ba mu fees te xottu amu fa cuuraay bu dul cuuraayu jinne mu ngi sama coiffeuse man sama néeg ku di ma seet booy dem cuuraay laa lay may wala parfum kon yow wéroo ndax loolu teg nga si sa bët dootoo ko defati nag doo dootoo ko defati gis nga man ngoone coow lii tànk yéegul ba tribunal wala monde entier di si wax man ngoone ndooy man duma arrêté Fatou Thiaw foo bëgg ñu dem fii yow sa lëfal nday heure boo yeewoo yow yaa dàq saboote yow defoo yi nga boole moo bari defoo yi nga boole moo bari man maa la gën yow sama tànk sax la gën yow am jëkkër am far sa génération yaa ko fi génne ku ka def si yow la ko gisee man bu ma ko defee si yow laa ko gisee ndax yow da nga farantoo farantoo farantu ba sa jëkkër bàyyi la moo tax ñu fase la boobu ba léegi mënoo am jëkkër góor ñu ku yéeg wàcc ku yéeg wàcc yow bés bu la takkee sa jëkkër du fekk si yow lu fal ndayam ndax sab data yow comme ab teen chaque jour nga def rapport doo tëbal chaque jour góoroo góor nga dem infect waaw yow yow yow yaayay yow yaayay de yow yaayay foo fekk nova ramassé ka ndax sab data si boppam moo xasaw man man xaw nga maa kon li fi nekkoon di togg di jeegu yëpp yaay yaa <laughs> sa mu ngi woon si seex mbaa nga ne seex du la katt seex yabu ma yow xam nga loolu démb dama ko woo mu weddi ko ba mu set xam nga lu gën a neex muy weddi ma xam ne day duul ma toog bàyyi ko si biir yëg na ne yow ñëpp dinañ la katt ba mu des seex seex nga namm waaye du la katt sa data boobu di nga ko écarté keneen dugal si koyam waaye du doon seex maa la gën a vulgaire tu coow dama ne la nga xam nga la laa bëgg nga débloqué ma ndax man téléphone jàmbu laa waxee ak yow dama bëgg nga débloqué ma ndax man débloqué naa la ñu jàkkaarloo monde entier du ñu dégg. yow doo datam ndayam doo lëfal ndayam yow sëtu jaw yow dama la yërëm sa àddina moo yàqu yow yoo fi jaroo fi lëfal ndayam classe ak dignité bi ngay jaay moom la waa danga doon jeegu ne dangay tontu di jaay da moo tere nga tontuwaat samay audio man man ak yow dawuma si dara audio yi boo bëggee ñu koy envoyé te deux ans dawuma loolu te da nga na ragaloo benn yoole waaye léegi sëgam yow mi sab data nekk si internet bi nekk ba Europe fu ne mu nekk fa yaa dawul yoole man mi nga xam ne sama data Sénégal njaay gii la yem si dawoo yoole dee ma tontu man loolu laa bëgg ma wax nga di ma tontu tey laax naa sël fal tey ba nga réglé wax amul. avec si laa la fekk sama kër bàjjen ubbi sa la fal nday ba nga réglé matt la gajj la def la lu ma saf nga bàyyi fa say matt bi sa dera ngi fax maa ko foto estatu laa koy dugal léegi waxtu am dara du am yow sa la fal nday ah ok <laughs> la kay kon li nga dégg keroog ma lay ma lay kaa si katt mi ne naa Cheikh dafa mën a kattan te damay ak si coiffeuse ah da nga bëggoon ko laaj yëngu ne Cheikh du laaj est ce doo dem feneen loolu daal fu kattante ne fu fu yow yow yaa bon tout réew yow yow sa lëppal nday moo seex di duul ne maan waaw dama bëggoon a xam surtout Diaw caga gi ñuy wax dafa dëggal ca seex moom am na si lu ko leer pour yow seex bu la kattoon dalay bàyyi mu wax ngay jéego noonu toog naan waaw te seex bu ma kattoon di nga xam ne lépp dëgg la yow seex yow man nga ngaa defal lu ma ko defal seex man lay wër man ngoone ndooy seex man lay wër suba ba guddi mu tëddi seex bi nga xam ne ñëpp dañ ko bàyyi ndax man mu gën ma téye pour yow la moo tax mu téye ma katt yu neex seex maay katt lu fal nday man maay jëkkëram bu guddi jotee maa kay katt ba koy suruxal si ventilo bi di ko génne di ko tegaat si kaw lal bi kon wéroo pour yow loolu boo ko tëddee ma ñàkk ko yow yow ñu ngi yow yow yow doo tëddee kenn ba jabaram ñàkk ko xam nga lu tax amoo benn palmarès yow góor dalay xemme mi iri la jox la benn 3000 katt la bu katt yi neexee mu dolli la si 2000 muy 5000 nga may ko ñaari daanu yow kan moo lay takk wax ngay duul di jeegu naan waaw te seex bu ma ur yow yow waaw yow yow yow yow yow xamoo sa bopp seex dara naroon uri katt la ba pare man la ma fi métti naroon na maa wàll infection waaye man li nga sama tata bi dafa set wecc est que xam nga loolu dama koy sitayaal ba mu set keroog bala benn jëmp di uri man maa la may li nga def sa data li nga ko raxasee li nga si raxas noonu yow xam nga ma man moom laay raxasee sama data ba mu set di ko sitayaal di ko ovule man infection yombu ma xanaa nga wàll ka Cheikh te bu nga xamee Cheikh moom dinaa eh, yow yow yow tuug yow pour yow yow yow da nga neex man dama bëgg vocal yi di daanu nii benn par benn may wax nga may tontu vocal yi laa bëgg muy daanu ba monde entier xam ne maa ngi geerax yow lu neex man loolu laa bëgg loolu laa bëgg nga defal ma ko dama doon jéggi si suba naan waaw yow man ay man dama la yërëm dama la yërëm te bu la dara metti audio yi di nee nga ma tas audio yi démb démb nelaw ma ndax tas ay audio ku am temps maa toog sama digg lal tasaare audio yëpp si dëkk bi audio yi dina tas di dégg naa dañ la naroon takk ku góor ki yaayam ne du si dal ndax baaxoo juboo yaayama yay nag pour takk la indi la foofu nga katt paa bi katt meer bi comme jiwin nga bàyyi woo data bàyyi woo kooy yaayam moo yay di man bu fekkee cagalaay tamit xam naa sama bopp waaye xamoo sa bopp yow ku jot katt la xale yi ñëpp lay katt ndëngaañ da nga raasa ndëngaañ moom ah ndëngaañ jaroo fa lëfaa ndaayam dégg jaroo fa datab ndayam koo àndal ñaari fan yàq ka ba mu yàqu yow yow doo gor heure bii daaw say foto la woon ren say audio ma sàjj sa audio ba mu bari doole ba xam yow lan nga si man sa lëfaa ndañ say audio maa publier say audio maa laax sa dëjjaw nday ba jaw ba jënd tiir manoo si dara maa la tiim sa nday lu neex gedd sa kanam ba mu yàqu màtt la dindi say jaaru sëlëfanda jaaru yaa ngi nii ma foto estatu laa koy dugal léegi tàjj a estatu ñëpp di gis yow doo bandi da ngay bandi bandi la yow ne woon naa doo bandi di dégg ma may commentaire ngay ñëw ma jàppale sama xarit nga naan seex li ma damay katt lu neex ah nga bëgg ngay duul ne kaan waa waa kon bàyyi bàyyi ma sangu ñu dem rapidement dóor ko mu daanu lan ngay doon mu daanu sama kooy jëkkër bi ah yaw yow yow yaa bon yow ko la bàyyi nga écarté mu dugal si kooyam loolu du am loolu tey mbirum katt moom nga dégg may wax ne dafa neex yow nga bëgg seex laal la sa data bu yóbbu sa data bi nga xam ne sa ñaari livre da yi benn baa nga ngor benn baa nga wakaam daxa tas mënatu la daje doo se fexe lu ko dajale gënul nga di ko gën a tijji yow rapport boo def muy gën a tijjeeku rapport boo def muy gën a tijjeeku sa année nga ëmba yàq ko yow da nga toj fenn sëtu caw yow fan nga toj fan nga toj sëtu caw sa yére da nga ko ñuuxa ñuuxa ñuuxa ñuuxa ñuux benn bataan boo def sa yére amoo ko si ab saag ngay def saa yooyu dem jënd lu bees ndax boo defee dara si saag bi balaa nga kaa wër fii di nga ko wër 5 heures ba geewe moo tax saa yooyu dem da ngay jënd lu bees yow kan nga mën a xas kan cagatoo cagatoo cagatu ba ràpp gis ma ma jënd sama chevet teg gi sama natt nga dem ne Ibou Diagne la xaw ma kooku la doon doxal bëgg laa takk nga nekk ko da ëmb kooku jox la xaalis bi pour nga yàq ëmb bi nga dem jënd ji këp cheveux teg ko nit far nga dem kooku yaay bëgg na liggéey sa ndax da nga ne cheveux biñ la jaay da tam ndayam baaxu si yow dootoo ko defati li nga xam ne doo bandi vulgaire oo maa la gën a ñaaw laa mañ man mi nga doon topp dëkk bi naan damaa tàppe maa laax sa lëfal nday ba muy bari doole ci maa la tiim ubbi sa lëfal nday lu neex gajj sa kanam màtt la baa ngi nii laa koy def daf ko estat wax du am maa ngi toog dara maa ngi toog di ñëw sa yow mën a yow ba tout cours de monde yow mën a yow ba fu mu yam neex dina nga dawoo saala comme yow mi dawul dara daw mu naan waaw mu ngay jéegu naan daw ma benn yoole yow yaa dawul yoole yow mi sab data nekk France nekk Espagne fu ne mu ne fa moodu boo waxal di jaay duul naan waaw man moodu moodu yi bu jógee fa ka ñëw jàppala katta laa katta katta katta appartement bu ne ñu ñëw bu la fa ñoom bu ñuy dem bu ñuy dellu duñ la sax tàggu ñaata yoon la xaarim dellu xaarim mi fi ñoom bi passé nga ne moom tëddee la ba nga yàqu xaarim bu moo deelu ta la nga doon jooy sa moom ne maa doon defal bantaali di la doxaan nax la yóbbu la ne dama la jëndal ab ne la dama lay takk jëndal balal nga dem ba tànn la sab lala sab armoire bantaali ba ay la takk keneen ngay jooy maa la defal loolu ñaata ñaar ay jooy yoo xam ne mënuma toog fi a ko wàññi yow kon kan nga mën a wax dara yow mënta ne yaakaar nga ne dinaa takk nga jël jabaram mu def jabaram statut sàcc mariage bi statut nga jël statut bi nee nga da nga koy gaañoo yaay jël ka ne ka mantaan sa jabar xaw ma la la la toon damaa ngi toog mu ne la kii dafa toog kër ndayam ma takk ka dafa fees del yow mi nga xam ne da nga wóor ba mantaane bu daan wàcc jàppale sol la ñaari biri de tëddee la tëddee te yaa yaakaar na mantaane takk xam nga si lu fal nay nga jooy ba sonn sama kaw lan nga doon jooy ba nga doon defar seex moom cagala la def pour mu leer maay jéeg bi maa ngi nii wax amul di cagalaa waaye am naa jëkkër yoo amul jëkkër sama jëkkër lay wër di la katt